bokkul du dem sam yal na ko yàlla e, yokk leer moo daan wax ni e, mënuñu fi nekk waaye mënuñu fi ñàkk e, def nañ ci ay waxtaan ci ginnaaw xam nga tey ji la am fukki at ñett bi mu fi jógee fukki at ñett le 7 août deux mille deux cinq euh, dangay wax ne yàlla gis nga ni muy boole <laughs> dafa am jamono dañ ma daan jaawale ak waa kër Cheikh Mouhamed Mourtada fekk may xale bu tuuti am kër gu ma dem di seeti ku feebar ñu foog ni waa ci waa kër Cheikh Mouhamed Mourtada Mbacké laa bokk loolu def ci man ma am curiosité pour bëgg a xam Sëriñ Murtada maa ànd ak doomi borom kër góogam koy wax Moussa Njaay Moussa eh, ku jege woon Sëriñ Murtada ak waa këram la moo tax ma xam sëriñ maam sëriñ maam sëriñ Mbàkke dina ñëw fii doomi Sëriñ Murtada la Euh, ci relation boobu ma am ak sa suñu góor gu baax ak sëriñ Mourtada ci laa xamante ak Serigne maam Serigne boobu ñu ngi nekk ay xale yu tuuti am sëriñ billet d'avion bi mu njëkk a génn Sénégal doomu sëriñ Mourtada laa wax de maam Serigne danay ñëw di dal fii sans cesse laaj leen ko billet bi mu njëkk a voyagé génn Sénégal maa ko jënd euh, yàlla ak booba cofeel gi ma am ci Serigne Mourtada ci laa xamante ak euh, Serigne Abdoul Aziz ndeysaan mu nekkoon ca unité 7 waaw foofa lañ daan dem man ak Moussa Ndiaye ñu ngi toll nii dañ daan bolot bolot waaw waaw kenn mënu ko woon euh, ci bolot waaye ku ko gënoon euh, lewet baax xaw ma ko moom la Youssou Ndour di woy Aziz naka la koy waxee di Bamba sa maam la ku baax la woon na ko yàlla yërëm naka noonu ñoom siidi ñoom Muntaqa ñoom sa imam Cheikh Moussa Bakke waaw ba ni ñuy xamante sëriñ Maam Moor mu baax mi e, niroo googu nag Moussa def ko remarque diggante sëriñ Mouhamed Mourtada ak sam papa ba ci ni ñuy waxee seen xeesaay ni ñuy jàppee seen cet seen seen bëgg alxuraan bi ci gën a grave mooy Serigne Mourtada jóge fi 2007 astaghfirullah 2004 le 7 août 2004 déwén sa le 7 août 2005 sama papa jógee fi même même date waaw ah, euh, ñu ñu ñuy ñuy jaale euh, ñaari famille yooyu passage waa kër Cheikh Al Hadj Alioune Sakho fu ñu mënta nekk ci àdduna gis nañ ñaan yëpp ak kaamil yeeg eh, ya ngeen def ca euh, kër gaag. ci euh, réseaux sociaux yeeg ci yeneen dëkk yi loolu nag ah sant yàlla la sant yàlla la moo xam njabootam nga nekk ci Chine Ousmane sëñ Ousmane njabootam gi nekk ca Japon Abdallah ak Mama Ali ak ñeeñ fa nekkal njabootam ga nekk ca Turquie ñoom sëriñ Muxtaar njabootam nga nekk ca Brésil ñoom Cheikh Mohamed Fadil njabootam yu nekk ca Italie ñoom Sëriñ Babacar ñi nekk senegaal ak ñun ñi nekk fii yépp eh, barkeem rek nag barkeem rek matul ñaari semaine dama dem eh, ànd ak sama njaboot ca raw doom kaamil bu nga xam ne man ak sama doomi bopp ñoo ko jàng ma ne ah, kaamil yu ñu ko jàngal yëpp neex na ma de waaye bii nag moo ma ci genn neex kaamil bu ma ko jàngal ak sama njabootu bopp tëjee ko tëj ko ci euh, bërëbam ci kanamam ah yal na ko yàlla nangu waaye góor gu mu amul morom la musuma gis ku sell comme góor gi Alioune Sakho musuma ko gis ku bëgg Cheikh Tidiane comme moom musuma ko gis ku bëgg yonent yàlla Muhammad comme moom musuma ko gis te waxuma ko ngir farparlu musuma gis it ku ko gën set musuma ko gis mosuma gis ku ko gën a bëgg jàmm yàlla mosuma ko gis mosuma ko gis mosuma ko gis mosuma gis ku ko gën bëgg njaboot ndax ñun li ñuy nekk ci daara ji yëpp dafa ñuy fayal suñu lekk di ñu fayal suñu séjour duñu liggéey liggéeyu daara mukk jëlal ñu ku ñoo toggal bu dee ca ndar mu jëlal ñu fuñ dëkk waaw doomam yëpp tabaarakallahu taxaw bi mu leen taxaw kenn mënu ko fay ak doomi jàmbur yi nag yi ñaan barzaxu sayyiduna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la doon nooye di barzaxam ba faw cheikh Tidiane yi mi mu doon xalifaam ni mu ko nekkee ci yonant wax naa ko ci benn euh, qasida wa radiyallahu an cheikh yi wa man bihi tawassala min qaasin wa min daani wa an abil xasani sharifi saaxo ali xalifati cheikhi fi sirrin wa ilaani waaw yal na yàlla seddal suuf ci kawam yal na yàlla eh, bëril ay fuyoo daatam ci ruuxam ak ci mbootam yal na yàlla tekk loxoom ci njabootam te taas ñu ñun ñëpp ci barkeem waaw ñun ñëpp xaj nañ ci waaw koo xam ne ba nga ajee Makka soixante ba ni ngay faatoo at mu ne yaa nga mag kenn du la seen lu dul ne kurus kurus lam yura qat sayidul qawmi ali illa wa fi yadayhi subhatul wali mosuloo ko gis lu dul kurus gaa ngi ci loxoom te loolu noonu la Cheikh Tidiane meloon wax nañ ne Cheikh Tidiane foo ko gis mu ngi kurusam waaw te <laughs> Imam Junayd dañ ko laaj ne ko yow eh, ni nga toll ci yàlla looy doy di kurus mu ne kii ci laa jaare ba yegg ci borom bi kon duma ko mën trahir ki la yóbbu ci sa borom dootoo ko mën bàyyi ak góor gi mosuloo ko gis fekk yorul kurus foo ko fekkit mu ngi jàng alxuraan foo ko fekk ñuy ngi jàng alxuraan waaw boo ko gisee rek ba ñi ngay njëkk a gis mosuma dugg ci saalam wala ci néegam fekk ko mu toog ci kaw lal mosuma ko gis wala ci kaw tëy dafay gàppardiku rek waaw mosuma gis moo tax man ba léegi ñemewuma toog ci fauteuil yu saalam ba léegi ñemewuma ko fukki at ak ñett waaw te foogu moom mos ko ñëw nag yàlla nañu ko yàlla fayal Eh, tabaarakallah te taas ñu ci barke xaw ma dafa mel ni dafa am kuy woote waaye waxtu wi de jot na bisimilah.